koy jàppal tànk parce que man dëgg rek laa nekk di jàpp ku nekk ci dëgg ma jàppal tànk balaa nga ko woon a xam yow mi tey ñu bëgg la jaay doole wala ñu bëgg a sa kaw lu xam ne du yoon mais su fekkee nag jàppal tànk ci affaire partisan mooy dem nekk ci parti di politique ak loolu man loolu kon ñëpp xanaa ñëpp xam nañ ne ma tànk Sonko parce que man am na liberté wu bokk ci parti bu ma neex. Mm-hmm. bokkuma ci benn parti. mais jàppale ci wàllu communication defe naa moo ëpp solo sax tey jii bokk ci parti ndax communication dafa am solo. Mhm. am doole lool. Mhm. dem kaay ma jox la benn cyclicité noonu la. waaw. ah mixte cyclicité ah. waaw moom macha allah <laughs> Sadio Gu jàngal na la français ba nga dara xam nga ne man Sadio Gu sax man daa mel ma toogee moom mooy mooy réeral sama français yi daal man man gisul Sadio damay mën a làkk ah mixte cyclicité laa la koy jox. Uh-huh. Ousmane Sonko. Hmm. xam nga man électeur laa damay wate. Mhm. man mosuma ko wateel. Ah pour wax la rek faraluma ko. gis nga man laa njëkk a wate ci sa àdduna. boobu Ousmane nekkagul ci politique. la ci laa ci laa ci laa am électeur laa wax ma ma bin ma wateel Ablaye Wade 2007. ñu dem législa kii nu mu législatif ma wateel Talla Sylla mii. waaw booba nag taala da doon wax rek naan yu sama mayen bi xam nga booy doog a nekk uh, xale bu góor révolution ku yëngal rek ngay wër ma dem woteel ko bokk na ci lu ma réccu ci àdduna moom si la ma woteeloon hmm. <laughs> xanaa déggoo li Babacar Diop wax démb <laughs> ba seetaan Babacar Diop ba mu yàgg ma ne euh, gis nga yow Awa Diop. boo gisee gars yi kalaasu Madiambal Guèye kalaasu gars yi di kilif rëfi Sonko mm-hmm. nii Sonko dëmm la Sonko nangam xam tax. Mm. xam nañ ne liñ toog maanaam tilim na tilim goo xam ne mënuñu koo fóot te xam nañ ne buñ jógee rek Sonko génne tilim tilim yi. xam nañ ko. Mm-hmm. Babacar Diop mii ngay gis saaru Sonko la. Mm-hmm. maanaam damaa yaakaar ne sax euh, révolution bi am Sénégal. mooy bii bëgg a am muy coppite ak taxaw rax lépp normal maanaam dafa commencé ci local yi ñu génn. Mhm. te maa ngi ñaan sénégalais yi voteel opposition bi du mën diw nag maanaam pouvoir bi néew doole ci biir assemblée loolu continuer d'accord léegi maa ngi ñaan bu ñu eggee 2019 tamit ñu daaneel nguur gi teg fi geneen nguur. 2024 2024. Euh, gis nga Babacar Diop sans Sonko yii la ay gis nga Babacar dafa dëgër bopp ba noppi am xam-xam ba noppi bëggul àdduna. Mhm. moo tax ay taala si lay yi euh, am nañ problème bu rëy parce que taala li taala loolu la wane woon euh, dëddu àdduna non taala dëdduwul àdduna loolu la wane woon ci àdduna taala taala muy lal basange taala nga xam ne léegi taala bi far basangom la ma nga ànd moom yëgoo <laughs> yëgu léegi taal yéegi ci fa taali far ba ngom la léegi moom far bàyyi na lépp far ba lay topp waa léegi exclusivité ñëw léegi nag gis nga taala lii mu dama seetaan moom yàgg ma ne ah waaw man taala dégg nga foo naan nag wax dëgg yàlla nag bi ma digloo Babacar ba ma jàppoon naan taala nag moom dëng na waaye yëgut foofu waaye nag damaa yaakaar ne bilan ba fi ñu ko xool la nekkul mhm. ba taala bilan bi ci way la nekk da doon way di dem ci tante yeeg lépp di way loolu moo am na ci bilan mais ndeke yoo moom affaire section yi mu doon liggéey bu mhm. amu ci dara bilan sëñ bi am na yoo xamante ne bu ñu la ko waxee gis nga euh, sorti Babacar Diop bi mooy liy perteloo euh, Benno Bokk Yaakaar élection locale xam nga élection locale yi jàll naam ñetti ñetti ñetti communes yëpp euh, Yewwi da ko gañe mhm. mais euh, département bi Benno moo ko moo ko gañe woon mhm. bàyyil ba élection yii ñëw lii nii Babacar génn nii mhm. mais loolu gars yi duñ ko baal duñ ko baal ñoom Idriss Seck. duñ leen ko baal waaye léegi sama exclusivité bi. léegi nag bi ñu jógee 2007. Mhm. man 2012 ñëw Ablaye Wade laa wateel. ñu jógee 2012 dem élection euh, Ablaye Wade laa wateel deux premier tour deuxième tour. Mhm. ñu dem législatif ma wateel euh, Ablaye Wade encore. Hmm? Mhm. ñu jógee législatif ñëw 2017 ma bëggoon a ab laay Wade. ci election yooyu boobu mooy première élection Sonko. far ñu dem biro de vote boobu mooy élection yi nga xamante ne dafa amoon sabotage ba élect euh, sama sama bureau man bokk nañ ci bureau yàqoon mu juma wote mais su ma yéene moo nekkoon woteel Ablaye Wade ci bi ñu jógee ci législatif kon première élection Sonko ñëw na woteelu ma ko ñu ñëw 2019 Idrissa Seck laa woteel man 2019 dama dem ba Touba ma wote Idrissa Seck kon élection deux mille vingt deux ñëw na fii laa watee parce que mm. dama def transfert fii Dakar. waaw fii Rufisque. Euh, bi élection yi jotee man Aline Mar laa wateel mooy mairu gox bii. parce que xaw ma ko mosuma ko gis mais bi ma laajtee waa koñ bi dañ na ma yoo maire moom Aline Mar moo vingt ans sax moo yor fii parce que baax na ci quartier bi. Mm-hmm. moom bañeeru gëm sa bopp la demee woon. ma wateeg man gëm sa bopp laa wateel kon. dégg nga. waaw élection yii ñu jëm nii. Mhm. yii ñu jëm. Mhm. xam nga bon nag secret la du ma ah. woon ne diw laay wateel. looloo ma jaaxal waaye sëriñ boobu laa naroon a wateel man. ñu dindi ko oh, nekku fi. Mhm. lay koy wateel ah Ablaye Wade ak Sonko nag buñ dajaloo moom. foofu nga jëm. nag a ah, dana neex dana ma neex de xaw ma nag. <laughs> dana la neex mais tey euh, mbir yi daa tàmbale woon euh, di xajam. <laughs> ci seen lëkkaloo boobu. muy loo xam te ne kenn xaaru ko woon. ñu jékki-jékki liggéey ko liggéey. waaw léegi nag dama laa bëggoon a leeral foofu. kon kon man dèjà am na lu ma leeral wax ne waruma ko woon a leeral mooy fi ma nekk laay wax. Ah. nekkuma ci ay sonko ñii sonko nekkuma ci loolu de man dëgg ma ñor politique bi may wax nii añuma ci reeruma ci ndekkiwuma ci xaaruma ci dara am naa leneen lu ma gën a ñor sax ay politique mais gis nga nag sëñ bi gars yi ni ñuy bëgg a def dafa yomb sonko dañuy ñëw ne la sonko. rebelle la nga ne non du rebelle ñu ne non Sonko kon te alalu terroriste yi la yor nga ne non yorewu ko ñu ne kon Sonko du waxkatu dëgg nga ne non Sonko li muy wax pourtant dëgg la. ñu ne kon Sonko li muy woote gëmu ko dafa bëgg a rek nguur la bëgg. nga ne non pourtant wanewul loolu li muy woote gëm gëm na ko pourtant ñu ne non Sonko dafa bëgg jigéen nga ne non pourtant Sonko li ko xale bu jigéen bi waxal du dëgg ñu ne non Sonko atlas ak xawma lan mooy 94 milliards da cee bëggoon a lekk. nga ne non non pourtant euh, famille boobu li ñu wax wane na ne Sonko yàlla loon defal lekku fa. ñu ah diaboliser waaw xam nga li ma lay wax nii Sonko lii so nga ne nga naan non non non ñu ne la ah yow yaa faral Sonko di. Mhm. ana faral. man ba léegi faralaguma di dañuy ñëw ne li kii rebelle la da ngay nangu ne léegi faraluma Sonko kon léegi damay nangu ne rebelle la leer na la yow kii li ñuy wax du dëgg maanaam nit ñi li ñu bëgg a def lañu war a bàyyi man Sonko ak Macky Sall laa yemale dañuy ñëw bëgg jël benn doomu aadama teg ko ci jàpp ko di ko jabu liise di ko jabu liise Sonko billaahi wallaahi tallaahi man damay toog ba mu yàgg dama koy yërëm. dama koy ah mais moom moo nangu dugg ci langue politique waaw mais xaar mais xaaru woon lii. mais ku dugg ci langue politique su fekkoon ne politique politique la ñuy euh, def depuis les Sénégal nii la. mos non mosuñu mosoo gis nit ku ñuy def ni ñuy def Sonko mosutul am. mosoo ko gis xoolal ma jambal Diagne li muy wan Sonko ma nga gis tey ci suba mu naan day envoyé Mody Niang ab audio naan ko waxal ak Ousmane Sonko bu ma tuddee euh, xaw ma lan di menacé waatee ah ma ma jambal ñoom ñi xoolal li ñu ma jambal lu mu wan Sonko ci at yi ah lépp lu mu xam loo xam ne dafa bon waruñu ko wax as gor dañuy jël di ko wax Sonko ah te loolu ñu ko waxee léegi ñi faral Sonko mooy ñi ñëw naan loolu du dëgg yow da ngay nekk ci penc mi wax sa jéggal ma ko wax ju wax joo xam ne. nuñ ko waxee sax nu ma ko mbay wax bëgguma wax fen wax lu la neex loo xam ne yow mi koy wax xam nga ne waxoo dëgg bu Cheikh Bara ñëwee ne kii li mu wax du dëgg mu ne non xool ko Sonko lay faral loolu mooy faral Sonko donc léegi ma yow gis nga ma jambal ma jambal wër na dëkk bépp ne moom dafa xam ay information ci Sonko ñi jege Sonko damay wax ak ñoom am na ku jege Sonko ku ma wax nangam jóge ci yow am Sonko am na lu mu wax loo xam ne gis nga ci sa bopp nga dem ca Mody Niang yi Mody Niang ana ñu jege sonk ñu muy waxal na leen yónnee audio bi ñu jox ko Sonko man moo di ñaa comme Sonko sa xarit la xaw ma lan ah yow Sénégal dangay ngay reeba tas quoi. mais tey bu ah? fekkee ne yooyu yëpp muy euh, mun nga ko tuddee diabolisation ak acharnement. dañoo romb diaboliser dañoo dem bay diaboliser Casamance ndax Sonko dem ba nga xam ne dafa mel ne Robel 2017 la am Sénégal Sonko xanaa moog Robel yi magante wuñ bi rébellion di am Casamance ak Sonko daanaka Sonko boobu mi xareel la bu ndaw te rebelle la nangam ak nangam xoolal bi Sonko ne monnaie locale yow waa xombal bu ñu ne woon dañuy def monnaie locale lu ñu leen di wax mënoo leen ko def parce que seen économie wala nangam loolu lañ leen di wax mais waa Casamance bu ñu ne monnaie locale ñu ne noo yéen moom du ngeen nit ñu baax. mais am na loo xam ne bëgguma ko sax di wax dafa am loo xam ne dafa rafetut dafa jaaduwut. te kenn du ko nangu. man de billaahi du ma nekk Sénégal gii ñu jàpp as gor soo xam ne moo leen gën fuuf. mais borom dëj bi mën na jooy dëjëm. mu ngi koy jooy waaye dañ ko koy jooyle waaw dëj bi dina na ko ñu ngi koy jooy ndax Sonko moom du woon na baat te te te te macha allah fexe na ba li gën a neex mooy dafa defar arrière pensée dafa am dafa am arrière pensée bu baax mooy mënoo ko ne sàcc nga mënoo ko ne fenkat nga mënoo ko ne lii nga. gars yi topp nañoo topp ba sonn amuñu luñ ko waxal léegi nag gis nga bu dee nag ñëw fii di ràbb ay fen di ko jox askan wi duñ leen ci bàyyi mhm. fen wuñ fi ràbb gë ñoo leen gën a yeewu téeméeri junni yoon voilà ay ma jambal yi li ñuy dox ñun xam nañ ko li ñuy dox mais li ñuy def ni façon la jàppale Macky Sall rek yow buñu nee nga naan Sonko woon a Khalifa Sall Khalifa Sall jànne na ko yow koo xam ne après ñu ne la yow li nga wax du dëgg nga xëy suba di menacer waate mais man Sonko laay waxal ma jambal mhm. jërul tudd jërul faale lenn la am lenn la am ci àdduna muy lu bon lenn la man te mi ngi ko koy def mooy mooy waxal ko lu dul dëgg ci lay xëy ci lay gont waxam jooju nag yàlla daa dogal ma jëmbal moo gën a ñàkk crédibilité ci Sénégal. d'accord gis nga morso yee ñu sànni ca sën ba sax ñoo ma ñoo ma tane ma xola ma jëmbal mi ngi naan na ma diw tudd sànq bi ma koy déglu ci suba damaa ree ma jëmbal koo dégg ma tudd turam da koy tontu. mais ma jambal nit ñi amuñu soxla ci moom yëpp ñu ne sax mi ngi mi ngi mi ngi dund. dina la tontu kenn amul du ma tontu. parce que dina ma jàmbal maa moom dañoo bokk dëkk Kajoor. ca ca Thiel ma xaa ma jambal xam nga ne sama mag bu góor rakk rakko ma jàmbal lay denc waaye ca kenn nawu ko. parce que façon yi muy def nii nit da ko war a jomb nit ko nga xam ne dund nga ba sa benn tànk nekk ci biir bàmmeel ah, boo lekkatee neexatul boo nelawatee neexatul daanaka àdduna jeex na ak yow nga nekk fii di continuer di def ay sale boulot yoo xamante ne kenn soxlawu d'accord ñu jëm euh, ci élection législative Cheikh Bara mu yëngalaat penc mi lool